ñi wax seen mbaaxu jëkkër juróom benneelu jigéen bi moom it dafa wax yaa Aïcha ne ko zawji ida akala laf wa ida shariba staf wa ida ittaja'a alkaf wala yuliju alkaf liya'lama albas zawji ida akala lafa وإذا شرب استف وإذا اضطجع الكف ولا يولد الكف ليعلم البث أجرم بأن الجيجين دي موميت وخنا أي ملوكانو جكرم ممدال نينا زوجي إذا أكل لف من من سمو جكر غورغو فقل لا غورغو بغ لك لأ. waaye xam ngeen ni dafa bokk ci aada jigéen mu bëgg góor gu bëgg lekk bëgg na góor guy lekk mais bëggul góor gu ëppal ci lekk bëgg na góor guy lekk saa yu toggee mais bëggul góor guy lekk togg beneen jigéen waaye bëgg na it góor bu lekkee toggam ba pare tagg ko dalal ko moo tax mu ne sama jëkkër bu lekkee rek ñedd mooy laf lu mu lem teg lekk bool bi mu lekk ba ñedd ko teg indi beneen lekk ba ñeddi ko teg waaye mu ne sama jëkkër amul benn xeetu mbañ ci ñam ñam yépp bëgg na ko moom daal lu ko newul bu ma lekk dana la lekk kon wax na ni jëkkëram góor gu bëgg lekk la mu teg ci ne wa ida shariba staf mu ne li ci gën a yéeme euh, mu ne sama jëkkër ni muy lekkee lay naane suy naan day naan bëggu nuxle maanaam buy commencé di naan du bàyyi moom daal ni muy naane moog ni gëléem di naanee benn la dafa wax ni jëkkëram ku bëgg lekk la ku bëgg naan la lekk boo ko tegal mu lekk naan boo ko jox mu le mu naan yoonam kon xam ngeen ni soxna si ku ñor la ndax neena na jëkkëram du bàyyi benn ñam la ca day waar nag la mu ca teg loolu beneen sikk la mooy wa ida tajaal taf wa ida tajaal taf loolu mooy bu tëddee nelaw pare amatul beneen soxla moom daal lekk bu suur naan ba màndi tëdd nelaw xaran te xam nga nag jigéen bëgg na kuy lekk waaye bëggul kuy nelaw nag góor guy nelaw li muy tekki mooy soxlawul soxna góor guy nelaw li muy tekki mooy bu jabaram defaroo ba jekkit du ko gis te li gën a doy waar jëkkëram buy nelaw du bëgg ku ko laal mooy iltaf moom daal bu nelawee daal jeex na bu dëppoo nelaw na bu jaaxaanee nelaw na bu tegee loxo nelaw na moo tax bépp góor bu bëgg sa jabar naw la bul di faral di bëri nelaw góor warul di bëri nelaw moo tax mu ne wa ida tajaal taf su tëddee rek nelaw na te loolu musiba day lekk day naan day nelaw kon li muy tekk mooy du góor gu aay ci lal góoru xar la du góor gu foor ci lal te jigéen loolu la bëgg bëccëg bi yépp da koy liggéey guddi bi day bëgg ku beej ak moom moo tax mu sikk jëkkëram ci lekk ak naan waaye sikk ko ci lal kon loolu lu doy waar la bu mujj bi mu ci teg nag moo gën a daw yaram nee na walla yuulijul kaffa li yaalam al bas sama jëkkër daal moom du raaykat du raaykat léeg-léeg du raay sama ndoq léeg-léeg du ma fóon léeg-léeg du ma bokk moom daal góor la goo xam ni daal moom jabar ji daal bañ ko waxee ca jàkka ja jeex na fa la sëy bi te jigéen daa bëgg léeg-léeg nga xëcc ko taf ko sa kaw ndax jikkoy xale la yore léeg-léeg nga yor jikkoy xale comme moom moo tax mu ne wala yuulijul kaf wala yuulijul kaf dina am leneen lu muy tekki dana tekki ni jëkkër ji loxoom du dugg poos góor gu nay la du maye dépense rek lay joxe moom daal loo wax mu ne dépense am naa ko waaye du may jigéen bi yeneen nécessité yi mu mën a jënd ak yooyu kon loolu mbokk yi baaxul loolu gënul ci góor kon wala yuulijul kaf nee na jëkkëram du teg loxo ci dox du raay du fo moom daal ni mbaam di def lay def bu soxlaa rekk këpp na yàlla nañ ci yàlla musal mu ne li yaalamal bés mu ne sama jëkkër xamul ku sonn xamul ku ko sonnal jigéen dafa bëgg ku koy encourager di ko ñaanal di ko wax ni ah tey kontaan naa ma chérie tey def nga nangam tey def nga nangam danger bi nekk ci lekk bu bari feebar lay indi day indi gëmment gu bari day indi nelaw yu bari góor nag bu biiram di fees lu bari sidditam day fasu kanamam du jóg du yëngatu moo tax ñuy tere ku suur rekk sëy kon juróom-benneelu jigéen bi nee na jëkkëram lekkaakoon la naanaakoon la nelawaakoon la du la tagg ci dara dara dara du yëkkati dara dara joxe ah boobu nag jigéen ñi bëgguñ ko kon nag ñun góor ñi nañ leen góor góorlu dindi melokaan bu ñaaw bu siifa boobu yal yàlla jàmmal ñu jàmmal leen wa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.